kon eh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen jottali nuyu itam président de la république eh, bi ma teewal fii ci eh, quarantième édition loolu nag moom xam naa ni yéen a koy traduiral seen bopp ci journée de l'arbre ñu jàpp ni bi yoon xay noonu lañ ko wax ci wolof mooy garab gi nga xam ne moom la ñu jël pour mu màndargal bis bi muy euh, bis boo xam ne par euh, décret bu ma jumul lañ ko lañ ko institué fii ci Sénégal euh, bii nag mooy ñeenteelu fukk at bi nga xam ne mu ngi am fii ci Sénégal kon di ci taxawaay taxawaay boobu ma ci ma ci sukkandiku rek pour jaajëfal gërëm Nous euh, ñi nga ministère de l'environnement développement durable et transition écologique Nous le colonel major nga euh, direction des eaux et forêts euh, di officiers yi fi troupe yi nga ñoo tax Sénégal di ko def secteur yu euh, ma wax leen ko kenn xam ko suñuy cadre suñuy officier bokk nañ ci ñi ñuy gën a ràññee ci àdduna ci secteur bi ñu leen dénk waaw muy tey boo jëlee li ñuy def ci lépp luy domaine euh, nu mu tuddati les les les les les au niveau des parcs et cetera fu ñu dem muy biodiversité muy leneen muy ci changement climatique bi ba ci jigéen ñi nekk suñu biir ñooñu ñëpp tey ci au niveau international la ñoo ràññee. kon loolu bu ma taxawee fii dama leen war a gërëm encouragé leen encouragé itam ñëpp ñi liggéey ci seen seen keppaar ba ci ndaw ñi nga xam ne tey jàpp nañ ni ay civil lañu ñu leen rejoindre euh, ci wàllu xëyu ndaw ñi nga xam ne président la république moo leen tàllal loxo ci wàllu woowu pour gën a dimbali ndaw Sénégal euh, am ci lu ñu ne am ci lu ñu jàpp mais surtout ci wàllu formation euh, pour justement jubali jubal ci ay métier kon wax ni bis bi bis la boo xam ne am na solo balaa may ñëw fi maa ngi doon xool image yi nga xam ne ci yenn département Sénégal yëpp suñu service yi ñu ngi def euh, lu mucc ayib ci wàllu woowu di jëmbat garab tey euh, muy la journée de l'arbre ñu ciy ñaax itam askan bi pour que ñu xam ne garab dafa am solo ci suñu dundin surtout fii ñu ne muy d'abord Sénégal di sa sa euh, sa Sahara et cetera bu ñu jëlee yenn agences yi tey ñuy xeex Euh, contre désert bi ni muy gagné surface yi loolu lépp dafa am solo kon mbokk yi tey euh, dañuy wax askan wi euh, bu doon suñu sago ku ci ne ci sa wàllu citoyenneté citoyen bu ne tey bu jàmbatoon garab toppatoo ko Sénégal soppeeku loolu dafa am solo parce que jàmbat bi yomb na waaye ci gannaaw mooy toppatoo ko ba mu taxaw mu am dëgëraay bi loolu ñu ngi ciy ñaax suñu suñu mbokk yi ku ci ne fexeel ba bis bii nga mën a am sa garab yooyu boo jàmbat euh, boo toppatoo ci weer yi di ñëw ba mu doon justement garab bi nga xam ne it sa participation la boo ci mënee def lu bëree ah waaw mën nga ko def waaye au moins sénégalais bu ne boo fexewoon ba am sa garab dana am solo parce que journée de l'arbre itam looloo ko yëkkati mooy que ñu jëmbaat jëmbat garab yi ci réew mi kon mbokk yi loolu la woon di encourager nag bu baax a baax a baax suñuy service ci seen taxawaay euh, Euh, ci seen liggéey bu mucc ayib boo xam ne euh, ñun ñi nga xam ne dañuy am benn regard boo xam ne parfois day décentré comme nu ma koy mën a waxee danañ apprécier di daje itam yeneen kuréel wala yeneen réew di mën a apprécier euh, suñu taxawaayu nit yi suñu taxawaayu service kon nag gouverneur bi fi teewal président la république ak gouvernement bi naam maa ngi fi ci wàllu gouvernement ñu ngi lay nuyu yow itam di la jox yóbbante ci wàllu ndakaaru dañu ne Cap Vert waaye dafa mel ne fi mu ne ni Cap Béton bi rek ci des euh, suñu mbokk waa Cap Vert dañu leen di ñaan ñoom itam ñu dimbali ñu am taxawaay boo xam ne dañuy euh, jëmbat garab yu doy ci biir ndakaaru waaye du ndakaaru rek fépp ci Sénégal buñ ko defee loolu danañu gën a aar dana gën a yokk suñu wér-gu-yaram dana gën a en tout cas euh, yokk suñuy taxawaay ñu nit Sénégal ci àdduna bi yëpp parce que àdduna bi yëpp ñooy xeex tey ay mbir yu mel na changement climatique te dama koy wax fépp dama ne ñun changement climatique du théorie ci ñun day lu ñuy dund parce que boo jëlee rek fi mu ne nii ndar ba Kafountine xam nga ni Sénégal fépp la ñu gis impact yu négatif yi nga xam ne changement climatique nga koy def euh, kon loolu dafa am solo taw gi day manqué fii waaye saa yu ñëwee gis ngeen li muy yàq te waroon na defar waaye muy doon souvent saafara buy jur jàngoro kon yooyu yëpp daf ñu war a yee gën ñoo gën ñoo ñaax pour ñu indi ñu nit suñu ku ci ne nga indi sa sa doj bu ndaw ci xeex bi ñuy liggéey xeex nii pour que euh, Sénégal doon justement un pays vert parce que suñu suñu ambition la reverdir suñu suñu dëkk loolu dafa am solo toppatoowaat suñu parc yu baax fii parc bi maa ngi fi invité bu ñu paree yenn liggéey yi fi bëgg a def Dakaraa yi def ko seen moomeel moomeel bi mooy lan mooy ngay participer ci yor ko parce que 60 hectares ci biir Ndakaaru mënuñu am beneen poumon vert bu ko gën parce que ci surface bi déjà Ndakaaru amatul surface ñu ngi defar actuellement benn parc urbain fële ca Yoff waaye boobu fukki hectare la bii nag juróom benn fukki hectare ñoo fi ne naam maa ngi xool ci carte yi am na ñuy commencé di roñ tuuti waaye loolu dafa am dafa laaj taxawaay pour ñu xeex ko loolu ñu dakkal ko parce que lii poumon vert la boo xam ne ñun dañ ko soxla par rapport ak li ko wër contrainte yi ko wër autoroute ko wër terre bi sax macha allah électrique la gong mën nañ ba waaye li fi dégagé ci carbon rek xam ngeen ni rôle parc bi mach am na ci solo lool lool lool dañ ko gën a dëgëral kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, ci seen teewaay fii di ñaan nag ku fi ne tey na nga am sa garab nag waaw casquette bi rafet na t-shirt bi na nga am sa garab xam naa mën naa mën naa ko yaakaar ci yéen surtout ndaw ñi ku ci ne yoral sa garab bu dee sa biir kër la wala sa buntu kër wala ci quartier bi nga ñax ci say dëkkandoo pour que vraiment euh, sénégalais bu ne indi participation am ci loolu maa ngi leen di mu leen sant.